Eh, dafa dëgg de la presse en abordant le en ce qui n'est pas un cas ce qui n'est pas un cas et je vais vous démontrer tout à l'heure pourquoi il n'y a pas de cas Khalifa c'est plutôt le cas Macky c'est-à-dire celui qui a ses humeurs et selon ses humeurs décide de qui participe et qui ne indemne de ce complot parce que son casier judiciaire est vierge. Il a versé sa caution lors des élections présidentielles de 2019. Il a obtenu son quitus fiscal. Et comme vous le savez, c'est à partir de cela qu'il est autorisé à organiser son parrainage. Lequel parrainage lui a des supports, des supports officiels. Pourquoi il a disposé de tous les documents dont il avait besoin pour aller au parrainage Pourquoi il a disposé de tous les documents dont il avait besoin pour aller au parrainage C'est seulement après le parrainage, et surtout encore le parrainage, parce que y a à redire, est-ce que finalement Khalifa n'avait pas fait peur après le parrainage qu'il a décidé de disqualifier Khalifa Sall à l'époque candidat de Taxawu Sénégal. Nous allons aux législatives prochainement, dans 4 ou 5 mois. Il se trouve qu'entre-temps, Khalifa Sall s'est octroyé d'autres galons, à savoir président de la conférence des leaders de Yewwi Askan. Quel honneur! Mais quelle charge! président de la conférence des présidents de Yewwi Askan Wi pour qui connaît Yewwi Askan Wi <laughs> je pense que Yewwi Askan Wi ne va pas se laisser faire Yewwi Askan Wi ne peut pas se permettre de laisser monsieur Macky Sall selon ses humeurs organiser la disqualification de son président et peut lui interdire de participer aux prochaines échéances c'est pas possible c'est pas possible Et je pense que si je vous dis que ce n'est pas possible, ça veut dire que ça ne se fera pas. D'autres ont déjà porté le combat, à savoir le M2D, pour ne pas le citer. C'est le, le, mouvement pour la défense de la démocratie. En son sixième point, a été explicite. Il n'est plus question de disqualifier des acteurs qui ont le droit de tenté de le faire ce n'est plus pareil il n'est plus simplement seulement le leader de Taxawu Sénégal maintenant c'est un autre Khalifa Sall qu'on a en face comme vous le savez nous avons averti parce que nous avons essayé de parler à nos guides religieux qui nous encouragent à préserver la paix J'ai beaucoup aimé un titre de ce matin. Tivaouane, le calife appelle à la consolidation de la paix. Yewwi Askan Wi pose le problème des dossiers politico-judiciaires de Khalifa Sall, Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. C'est vrai. C'est vrai, nous l'avons posé parce que ku bëgg jàmm da def jàmm. waaye Serigne Cheikh Tidiane si almaktum daf ni woon bu jàmm xewee ku wax ay yaa waaye ku jëm ci yow ak ay boo defee jàmm yaa tooñ parce que lum la def yow la def yow la dafa am nag lu fi xewoon 2019 te bi muy def xew 2019 tegewu ko fenn lu dul làqutu def ko ci panier rejet parce que bu ngeen fàttalikoo dafa amoon cinq candidat cinq quatre candidatures acceptées ak vingt deux rejets mu jël xaali kaawu Khalifa Sall def ko ci rejet yi bu ngeen ko seetloo sax ba le lendemain la ñu door ne non xalifa amul problème mu parrainage mais problème mu dossier judiciaire waaw koo xam ni yow yàlla dogal na sa casier judiciaire dara newu ci vierge na koo xam ne taxaw nga verser sa caution caution ba versé woo ko par la poste demul fenn da nga ko versé CDC nga ko dugal CDC di démembrement de l'État ñu accepté ko nga jox la say këyit jox la baadu parenage bi sax dafa révélé lu tax sa waay tiit ndax moom depuis parenage yi pare la dooree ñëw ñu ni rejeté nañ bosu xalifa Sall ak bosu Karim Wade waaye yooyu c'est pour des raisons judiciaires ñu dugal ko ci keesu rejet yi daal ne am na 22 yu ñu rejeté kenn xamul kii la kenn xamul kaa la ba ca ëllëg sa ñu door ne xalifa loolu moo tax ñuy artu nag validé wuñ ko de dañuy artu artu bi ñuy artu moo de élection législative yii xalifa Sall mii mooy président conférence des président day bokk élection législative yii ku ko déggul jottali ko ko nee ko Khalifa Sall day bokk xëy na ba muy président taxawu Sénégal mën nañoo def lu leen neex tey nag yeewi askan wi moo portel Khalifa Sall candidature dem ci législative bi am nañu ko porté woon waaye boobu du même contexte bi ñooñu démocratie la ñuy défendre parce que lii dafa bokkul ci démocratie bokkul teguwul ci yoon donc md 2 comme que dañuy toppatoo dañuy défendre démocratie ci Sénégal loolu moo tax ñu porté woon ko ci seen point six gannaaw bi ñu porté lu concerné Sonko ci point trois bi ba pare parce que booba sax waxuñu Khalifa rek dañ ne xalifa ak monsieur Karim tey nag M2D mu ngi leen di wax ni décidé na ni président wu conférence des présidents même su bëggul bu yeewi askan wi c'est vrai de ma préciser ni président de la conférence des président bu yeewi askan parce que nag dafa am solo dëgg la ndax buñ nee yeewi askan wi rek dafay suggéré yi mu am yépp ci collectivité yooyu yëng ndaw ñi mënuñu waxtu wu nekk ngay def dara ñu dëgg ci jàpp ni kees yëpp yaa leen di moom lañ ca jot mu ngi ci yoon wi jàpp ni kees yëpp yaa leen di moom la ca jot ci yoon wi ndax xam ne ñoo waroon a wër def révision yi nee nga benn commission du wër parce que ministère bi amul xaalis ñu mayoon ñun ñeenti maire yu jigéen ñu bokk ci ma ànd ak moom AMF balaa Delano yi di wax dara laaj ko ma ànd ak moom AMF balaa Delano yi di wax dara laaj ko te ba léegi aan ci loolu la nekk kuy meeru Paris ku nekk moom ngay jàpp ne mooy sa point focal au niveau de l' Afrique waxuma la Afrique de l'Ouest ma ànd ak moom CGLUA marocain yi ñoo ñëw seet si ma ci sama suite ni ma dañu bëgg yow mi nekk sénégalaise nga taxaw wax te booba ministre de collectivités nga fa woon euh, Machin Sarr boobu moo moo nekkoon ministre des collectivités yàlla dogal waxuñoo moom man mi lañ waxal ni ma xalifa bëggatu ci dara booba Johannesburg la woon mu ni ma ñu dem africité ñu ni ma bëggatu ci dara mais dañoo bëgg CGLUA moom mu continuer nekk secretaire général mooy yore les les les collectivités et gouvernements locaux booba la xalifa moo nekk secretaire général ba siège ba nekk maro bi ñuy démettre xalifa boobu mu ngi nekk répondant u AMF donc loolu kooku su bañul loolu su bañul def loolu su bañul yàq deru Sénégal ci loolu pour des affaires donc loolu kooku su bañul loolu su bañul def loolu su bañul yàq deru Sénégal ci loolu pour des af comme pour des complots politiques ma ñun itam bu ndee rusul tàggi du rus quand le le le mal à toutes les audaces le bien doit avoir tous les courages moo tax dinañ ko dénoncer dinañ ko wax fii wax ko kër sëriñ si wax ko ci mbedd mi roote ju ko ca robine ba demee ko marché naane ko attaaya